cheikh bi xam nga man man xam nga lu ma. ci foofu mm-hmm. moom Njàmbe Daaru. Mm-hmm. Mor Xoja mooy bàyyam. waaw kooku moo jébbalu ci sëñ Touba. te yéen ni ngeen mel. Mm-hmm. ak li ngeen di woote. mbàkki mbàkkee meluñ noonu wootewuñ noonu. gisuñ ko ci yoonu murit ku dut yéen. ndax loolu dafay dëggal seen murit wala day weddi seen murit. xam murit dafa am ñaar. murit benn la sax mais sëñ Touba ba muy wax yoonu murit dafa dans une dimension universelle parce que tubaab bi ba mu koy laaj ñen ñooy ay murit mu ne ko képp ku ne ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu muhammadu rasulullah murit nga hmm. yoonu murit sañ Touba sanc ko hmm. sëñ Touba dama ne dama ñëw ngir yeesal yoon bi yonent bi jaaroon ak saxaaba yi moom laa ñëw ngir yeesal sëñ hmm. Touba sancul yoonu murit mais dafa fekk ni ci biir ci biir ci biir yoon wi ci biir ci biir lislaam dafa bëri ay kër ak ay néeg ku ci nekk nag kër ga ko féete su boobaa mën ngaa wuyoo borom kër googu sëñ Touba sax boo xoolee dafa doon éviter loolu ba tax parce que xam nga moom ba muy ñëw di woote fekk na fi Tijaaniya Tijaaniya mi ngi bàyyeekoo ci kan. Cheikh Ahmed Tidiane hmm. Xaadiriya mi ngi bàyyeekoo ci kan. Cheikh Abdou Khadir. Cheikh Asanusiya mi ngi bàyyeekoo ci kan Imam Sanusi. Hmm. Alkuntiya mi ngi bàyyeekoo ci kan. Imam Maxtaar Alkunti. Euh, boo jëlee ni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif cosaanam fan la. ay nomade Algérie. Algérie ñu bëri ñu ngi dem Fass lan moo ko indi Fass Maroc. xam-xam dañ ko exilé. Hmm. Hmm, dañ ko exilé parce que faydu bi fu mu tàkk rek boo moytu li ñu naan tuy tubaab naan nul n'est prophète chez lui. Hmm. nul n'est prophète chez soi. Euh, est-ce que moo yokk tax ñoom parce que kilifa kilifa yi yàlla walliwu yàlla mayoon yëpp ñoom ñu ci bëri ah dañ leen a exilé ah, ba ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. ba ci tey jii boo jëlee maam Abdallah ñas fan la fan la bañ ko exilé fan la nekkoon. suma kër maam kër Samba Gambi. Gambi. Mhm. te boobu ànd nag Mamba Jaxu xare ngir tubaab bi bañ a toog ba Mamba Jaxu daanoo tubaab bi dominé dëkk bi mun a xajoo fi tubaab bi daal di exilé wu dem Gambi. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg wax ji. ñoom lu tax ñu daan exilé wu lu bari noonu. non duñ leen exilé mais pays bi moo demee noonu parce que suñu borom képp ku mu yónni képp ku yónneen tam. dina mhm. la booleeg noonu jamonoom. sa noonu en en quelque sorte noonu yi yàlla da leen di jox lépp luy doole. Mm-hmm. dimbale ma ci seen wuute ak mouridisme. waaw léegi foofu ma ñëw dafay dëggal seen murid yi wala da ko am na dafa fekk ni yàlla du yónni ku ñëpp gëm. Mm-hmm. yàlla du wooteloo ku ñëpp nangul. dëgg la Serigne Touba dañ koo nangul. Mm-hmm. barkel barkel njabootam ñu gëm leen ba noppi yàlla du yónni njabootam. mais baat bi moom moo fonde yoonu murid mais Serigne Touba programme bi mu yoroon programme général la. nekkul programme particulier hmm. parce que xam yàlla tey jii bi ñu gën a yàgg dégg ci waa Kër Baye xam nga tey jii Baye bu ñëwoon woote julli ak warax te asaka dem màkk sellal rek su boobaa kenn du ko xam parce que su boobaa tey ji tarixa Tidiane ñu bëri dañ yaakaar Cheikh Ahmed Tidiane comme ni mu tuddee ci Alaaji Malik Tiwaawan am na doole ci yoon wi hmm. te bu fekkee ni da ngay woote te li ñëpp daan def loolu ngay woote amul sens est-ce que yaa ngi dégg wax ji. donc particularité bi mooy sañ Touba ba muy feeñ feeñ na ci benn contexte boo xam ne fekk na tubaab bi noot na lépp luy roi traditionnel ci dëkk bi. képp kuy sëriñu diine tamit tubaab bi noot na la ba nga xamante ni yow sa diine weesuwul julli woor natt asaka dem màkk mais luy lijjanti économie dëkk bi maanaam politique culturelle économique sociale bi amoo sañ-sañu wax ci. sëñ Touba ñoom indi benn forme d'éducation boo xamante ni. Euh, maanaam nit ñuy Sénégal dañu perteroon ay repères. Mhm. Sëñ Tuubaa ñëw ngir delloo wat waa Sénégal seen àq ak seen yelleef ak seen dignité ak seen personalité mhm. woote teg benn système d'éducation boo xam ne yoonu tarbiya boo xamante ne su boobaa bu fekkoon ni ñëpp gëm nañ ko su boobaa dina fi génnee tubaab yi te xat du domm mais li mu wax. <laughs> dafay maanaam yoonu murit. waaw mm-hmm. dafay dëggal seen yoon ci wet gële weddil ko fii wala yëppay. dafa yëpp benn la dafa fekk ni dafa baatinu ci yoon wi ba nga xamante ni murit du caagal ni yoruñu ko yor nañ ko mais euh, dafa nekk essence dafa nekk la prototype la dafa nekk maanaam tey ji bu doon école la. Mm-hmm. ñu ne niveau universitaire la. Mm-hmm. ci nga koy ci nga koy ci nga koy commencé. ci nga koy commencé étudier. Mhm. mais dafa dafa yàgg nekk tamit. loo xam loolu dafay dëggal ne yéen yéenay université ñeneen ñi primaire leen ci biir yoonu murit. Mhm. déedéet parce que man ci biir yoonu murit tey jii euh, Cheikh Moussa ba mu woote murit yi nga xamante ni dégg nañ mu woote di ko jiiñ naan ko da ngay da da ngay da ngay diir mbagg euh, Serigne Touba dafa leen ne sëñ Touba de topp naa ko ci pays yàlla bi tànk bi gaaw na bar na. Hmm. mais fas yéene naa fu mu teggi tànkam ma teg fa sama tànk. kan moo wax loolu Cheikh Moussa. ok mooy Njambe Daaru. Njambe Daaru. Hmm. Hmm. d'accord mu ne sëñ Touba topp naa ko ci pays yàlla bi tànk bi gaaw na bar na waaye fas yéene naa fu mu teggi tànkam ma teg fa sama. tànk mais yàlla yàlla Baye Fall Baye Fall lañu wala Murid lañu. donc Baye Fall kooku beneen débat la. parce que parce que Baye Fallisme xam nga tey jii man bu ma demoon États-Unis mhm. wala ma dem ci dëkku arabe yi. Mhm. di fa waxtaanee Baye Fallisme ñoom mënuñu ko vérifier fenn parce que xamuñu ko. comprendre nga mais dafa fekk ni dafa am benn mbir gi nga paxu jinax bu fi nekkoon. benn jinax génn da nga naan jinax génn na fi mais bu beneen génnee doo tudd jinax da naan beneen a ngi nii beneen a ngi nii beneen dëgg la dëgg la Cheikh Fall dafa am benn dimension bu mu fekkoon muy nelaw ci mhm. biir diine l'islam moom dimension boobu la yee muy ban dimension maanaam euh, yoonu murid dafa jiitu sharia parce que l'islam dafa am shariatu am axiixatu shariatu euh, daf ñoo dab waaye àggul fañ jëm parce que sharia li ko tax a jóg mooy sàmm jëmm mais axiixatu mooy setal xol sellal ko te xol mooy dem ci yàlla yàlla ci xol la dëkk yoonu murid ñambe daaru moom ban génération la sëñ Bamba la woon. Mame Daara ba mu fi jógee yàggul euh, euh, dans les années quatre vingt quinze quatre vingt dix la fi jógee. yàggul bàyyi na fi comme yoonu murid tey ñu ne kii moo jokk ci kii koo xamante ne yéen kooku ngeen di jokk. waa waaw am na njaboot. Ah. am na njaboot ñu ngi fii ñoom daaru boo demee ba Kaolack boo demee ba Passy. yéen gëm ngeen njaboot gi. waaw tey ji xalifa sëñ Aliou Cissé. ma maanaam. Eh, jëwrin waaw bisimilah man su ma laajte bi ba tey. man am naa lu ma waaw. kontaanu ma ci tontu man li ma bëgg a xam. Mhm. nga préciser ma ci loolu. Mhm. ñu mhm. moom taawam Xoja Cissé. moom wàcc na liggéey sëñ Aliou mooy euh, taawam mooy sëy suma mag. ah d'accord jërëjëf. mooy xojo Cissé. ak sa pour expliquer la ne. yéen lii ngeen di woote. te mu jugee ci Serigne Touba. Sëñ Touba am ay njaboot. yar leen ba ñu doon wàllu mat mhm. ñoom wootewuñ li ngeen woote yéen mhm. ni ngeen di doxee mhm. ñoom doxewuñ loolu man mi xamul dara te gis mouridisme ni muy doxee ci organisation ci sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Muntaxa mii borom mbég mi gis njàmbe daaru ba ci sëñ musaa Touré gis alaaji Keba mi fi jógee bu yàggul ak yéen seen façon de faire dafa am wuute ci ñun ñi nga xam ne xamuñ dara ci wàllu yàlla la preuve seen tur yi sax dafa wute. te lu am am tur day am jëmm day am melo. ñii murit leen leen tuddee. te xam nga ne sëñ Tuubaa tuddeewut ko murit. ñii yàlla yàlla leen leen tuddee te xam ngeen ne yéen tuddeew leen ko seen bopp. Mhm. expliqué nga Aziz mhm. histoire bi. Mhm. ñaari wute yi ci ñun ñii ñëpp xamuñ. dafay dëggal ne yéen murit ngeen. lan moo ko dëggal wala day weddi ne murit ngeen. bon foofu dafa mel ni euh, da nga ne amoo satisfaction ci ma la tontu mais tey jii dafa mel ni tontu naa la parce que tey jii boo demee ci euh, Masalikul Jinaan mhm. ci chapitre tawhid Sëñ Tuubaa mi ngi ciy wax ñaari xeetu tawhid muy tawhidu taqalum ak tawhidu taxaruf maanaam tawhidu taqalum mooy mm. euh, maanaam nga wéetal yàlla ci sa làmmiñ parce que boo ne ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu an muhammadu rasulullah mhm. boobu tudd nga ko ci sa làmmiñ dugg nga ci diine l'islam mhm. mais nag il se reste que est li sa làmmiñ tudd xol ba tudd na ko mhm. foofu la ñu tuddee tawhid nga xamante ni moom léegi nag foofu beneen xeetu dox la parce que gis leneen gis lenn ci ci lu dul yàlla mhm. su boobaa loolu ci yi nga xamante ni ñooy jaar ci yoonu baatin mhm. bàkkaar la mhm. est-ce que yaa ngi dégg wax ji mais tey ji li nga xamante ni moom laa la mën a wax xam nga yàlla dafa ne wal muuminuuna bi xayb alxuraan loolu la wax ku gëm yàlla ci kumpa kon jullit dugg na kon murit dugg na murit mooy ki namm dem ci yàlla léegi nag yàlla ay phase la dafa am phase boo xamante ni temporelle la am phase boo xamante ni spirituelle la phase temporelle bi moom la ñuy tuddee charia phase spirituelle bi moom la ñuy tuddee axixa yaa ngi dégg wax ji mhm. mais ñoom ñaar ñëpp ñi ngi ci yoonu mu rit mhm. léegi nag yoon bi boo ci duggee ak foo mënti toll rek lislaam am na lu mu programmé pour yow parce que yàlla xam na ni ñëpp tolloowuñu gëm-gëm ñëpp tolloowuñu xam-xam euh, jàpp nga ne yëpp daal c'est élevé non yàlla dafa ne wal muuminu ku gëm yàlla yàlla dafa ne ci alxuraan ku gëm yàlla te jëf-jëf ju baax mhm. ku gëm yàlla gëm bis penc non man laajuma la kon moom moo la waaw waaw ndax jàpp nga ni uh-huh. Uh-huh. yow da ngaa jàpp ni seen bos moo gën a élevé ba non du question jàpp euh, ñun amuñu parce que ñun tey jii dafa am ñi nga xamante ni ni ñu déggee baatu yàlla yàlla dañu uh-huh. koy différencier ak murit mais loolu amul amul a ngi a euh, nee na ñi ngi julli ñi ngi def lépp lépp lépp Cheikh Moussa dafa daan def moom ba ba muy wàcc liggéey lay doog a bàyyi màggali Touba te amoon na tool boo xamante ni daf ko defoon spécial pour toolu Serigne Touba. Mhm. ko wax tool boo xamante ni ba fi sëñ bi jógee képp ku fi dekkal Serigne Touba tool boobu mu yób moom la koy yóbbu. ba pare mhm. dem yeeslu ci doom jooju. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg waa ji. leer na léegi bañ koy laaj. te coow li coow li ñëw na am na taalibe yuy dem si jamonoy sëñ Abdoulahat ne ko coow li de bari na Mousse ñëpp ngi ñëw di wax te yow dégguñu la mu ne la ñett yii de ku la ko waxul wax na la lu wuuteeg dëgg mu ne ko yan ñett mu ne ko jaamu yàlla laa ilaha illallah moo ma ci doy. sëriñ sëriñ Touba ma ci doy liggéey Mbaye ma ci doy. ci loolu laay ñëw nag ñett ci laa. ci loolu laay ñëw Cheikh Moussa fondateur. saa ma ñëw ah wala da ngay.